la na nga teewloo suñu borom ruux boobee mooy la ñuy peese ëllëg yowmal qiyaam naka noonu muy sarax muy aji muy koor bu mu ci doon ruuga moom la ñuy peese ruuga mooy jëriñ ruuxu nit ki nga xam ne moom lañ koy defal wala moo ko defal boppam. kii day laaj ndax gannaaw nitu yàlla ki mën naa sell ba gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaxran mhm. ndax taali bi nga xam ne itam dafa sell na. ndax taali bi nga xam ne. Mhm. dafa am sëriñ mën naa dem ba sell ba nga xam ne sëriñ bi jógee na fi mu di ko gis jëxëram waaw gannaaw aar bi billahi mën naa gis seen islam jëxëram taal bi itam mën naa dem ba gis sëriñ bi jógee jëxëram loolu dégg ngeen ko dégg ngeen laaj bi tontu li kay moom lu évident la sëriñ bi ni mu mën a gisee yonent bi koo xam ne dara jaam àggarati muy gis yonent bi sallallahu taala wa sallam jëxëram ci dul gën taalibe bi mën na dem sax moom waxuma la bay gis sëriñ bi waaye bay gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëxëram taalibe dana doon sëriñam la lay tax mu doon ko ngëm boo xam ne gii dañu wax ne Cheikh Abdul Wahab Cheikh Abdul Abdul Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu benn marocain la woon yàggul loolu bu mu jógee àddina nee na nit ki bala ngay àgg ci yàlla lépp lu lu am dana dee ci sa xol maanaam mel ni amul ba mu def yonente bi sallallahu alayhi wasallam te bala ngay àgg foofu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana mel ni sa lépp ci àdduna dee na dara amul ci sa xol ba mu def sa sëriñ boo àggee foofu nag boo donnee ci martaba sëriñ bi la ci yelloo ci bu fekkee ne góor yàlla dëgg nga ndax sëriñ moom du ñakk muy mel ne alquran boo doon boo doon wàllu it euh, boo man a doon boo doonoon xutbul xaw si fokk ñu jàngal la ko ndax alquran lu wàcc ba noppi la du wàccaat ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek lañ ko wàccee ku ko amati da koo jàng ba noppi boo jàngee xaraf yi ba noppi nag ngëneel la moom nit ñi dañ ci rawante ci kam seen ngëm seen sellaay seen wilaaya seenu bëgg yàlla seenu farlu waaye taalibe bi mën na ak foo xam ne day gis sëriñ bi wax bu ko neexee ni nga xamee ne wayu bi mën na gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxtu bu ko neexee abdul abdul abul abbas al mursi radiyallahu ta'ala anhu taalibe bi cheikh abou al hasan chazali la waxuma jële la nanam dana gis wax bu ko neexee cheikh abou al hasan chazali waaye nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam la wextajaba an rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa'atan ma'adat nafsi min ar-rijal بل يعني في رواياتنا من muslimina su amoon benn gendiku bët boo xam ne jéem naa gis yonent bi man mënu ma koo gis rek du ma teg sama bopp fenn damay naan du ma dara xanaa xam nga ne kooku waxuma gis sëriñam Abul Hasan Chazali waaye gannaaw yonent bi sallallahu alayhi benn saa kon taalibe bi mën na gis sëriñ bi mën na gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu yëpp nag gis nga lii nax nit ñu bari moo di sharia loi rek la loi la loi bépp ci war a jaar kenn mënu la rëy ba ëpp ko loi ak relation du benn nit ki xaritu Abdou Diouf la lam koy defal yoonu loi nekku ci bu fekkee nag ci sharia rek nga jàng weddi loo gisul ci sharia wala loo xamul da ngay weddi yu bari yoo xam ne weddi nga loo xamul te la nga weddi lu am la te ñoo ulama yi arifoona yi nee ñu képp koo xam ne weddi nga ko mbugal gi gën a néew mooy ñu xañ la ko loo dund dund ci àdduna loo jaamu jaamu yàlla doo ko am doo am wilaaya képp ku weddi wilaaya noonu doomu aadama bi yàlla dafa lay moom yey ko ba noppi yey ko ni ma wax leen sànq rek defal na ko lépp lu mu war a aajowoo li ci def ci moom la itteem rek bu mat sëriñ day àggali nit ci yàlla ku àggali nit ci yàlla gis ko gis loo nit yonent bi salaatu ma lu ko yomb la ko ma laa gis sëriñ bi loolu moom lu leer la lu gàtt ah, nit ku jàng maanaam fiq kese nag moom fiq moom du la jàngal yooyu daf lay jàngal lii araam na lii dagan na ñii la ñuy miraas nangam ak nangam dégg nga euh, euh, kii bu faatoo tén gi nangam ak nangam la yooyu la lay jàngal sàngara araam na nangam nangam yooyu la lay jàngal mooy loi yi ci biir na diggante jaam bi ak boromam la yoo